benn ci tomb yi nga xamee ni tomb yu am solo la ci ju ci dundu jullit doomu ndey yenn point rek lañuy wax njëriñu julli nu feeñee ci yonente yàlla yi jiitu yoon bala suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ñu taxaw settantal ci ayat ay aay yoo xam ne dañ ci wane day wane ni julli de bu defaroo day defar société li taxaw seetantal ñenn ci ayat yi lu ko jëlee ci suñu yonente yàlla isa alayhi salaam nga xool borom bi dénk na ko lan la ko dénk wa awsaani bis salaa yonente yàlla Isa awsa allahu Isa alayhi salaam bi salaat wa huwa fi lmahdiyi sabiya lakum an tataxayalu walidan fi mahdi yaqulu wa awsaani bi salaat taxaw seetantal waal fa yonente yàlla Isa nekk li nekk ci tugg walla ci laytaay ñu ngi ko téye lëmas ko ci ay laytaay mu ngi nekk liir mbir mi jaaxle lool mu njëkk taxaw daal di ubbi gémmiñam wax lan la njëkk wax yàlla wax ci alquran wa awsaani bis sala benn ko kon julli ñu dem ci yonent yàlla Shuayb alayhi salaam lamma naha Shuaybun alayhi salaatu qawmahu an ash-shirk wa an al-fasaad al-iqtisaadi qaalu ya Shuayb asalaatuka ta'muruka allahu akbar ñoom tamit ñu waa Quraysh di Shuayb ba leen yàlla Isa alayhi salaam taxawee di leen fàttali yonente yàlla Shuayb alayhi salaam di leen fàttali ginnaaw ba nga xamee ni shirku fës na fa riba fës fa ñaawteef fës fa ba mu ñëwee di leen fàtte dañ ko ne yow nga yaakaar ni sa julli ji mën nañu tere ay ñuy def kon araayt bima yurafu almuslihun wa bu maada yuazzamun kon li ñuy taxaw seetantal ci aaya boobu mooy ñu màgg ñi ñu tedd ñi ci nañ leen leen di seete ñu ngi leen di xamee ci julli ñu ngi leen di teddalee tamit di leen xamal ni seen julli gi duñu teral ñi allahu akbar kon innaha as-salaa ñu ñëw ci beneen yonente muy yonente yàlla ibrahim alxalil alayhi salaam yatruku ibrahim alayhi salaam ahlahu fi sahrain qaaxil summa yaqul بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة الله أكبر إنها الصلاة yonent yàlla ibrahim alayhi salaam comme ni ñu ko xamee ci ba mu gàddaayee ñëw ba ci Makka mu nekk désert boo xam ne désert bu wow koŋ la saxaraa amul ndox amul garab mu ñëw taxaw ba mu ñaanee lan la ñaan ginnaaw ba mu xamee ni ginnaaw ba mu ñaanee ne borom bi yow yaa gën a xam ne man ñu ñëw naa ci xur gi nga xam ne xuru désert la du ndox du garab du dara ay xeer kese la maa ngi fi maag sama njaboot dal nañ ci bërëb gi muy Makkatal Mukarrama lan la wax ginnaaw ba mu ñaanee borom bi man maa ngi ñaan ne di la sedd di fedd leen ni naa dëkk fii ci bërëb yi nga xam ne yaa ma ko digal waaye nag lan ñaan rabbana li yuqimu salaat maag sama njaboot ji de ak li nga xam ne daa war a génn ci sama njaboot yi ak li dëkk fii dañ nekk ñoo xam ne dañuy taxaw ci allahu akbar kon julleen ko ñu jàll ci yonent yàlla Muusa alayhi salaam ya'ti Muusa alayhi salaam li maw'idin laa yataxayyalu al-uquul laa yataxayyalu al-uquul 'azamatahu fa yatalaqqa a'zamu amrayn إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لله الله أكبر yonent yàlla Muusa am loo xam ne yonent yi amuñu ko ñaan yàlla mu am moom audience yàlla may ko loolu audience bi taxaw mu war a jàkkaarloo buur muy rabbana subhanahu wa taala war a jël rek moom ay accord wala ñu war ay projet comme ñu koy xamee comme ñu ko waxee mooy waaye nag nga xool ne ku ñëw am audience ak borom bi wa taala lan moo nekk ci xelam ginnaaw ba mu wéetalee borom bi subhanahu wa taala mu seedee ni amul benn buur dañuy jaamu ci kaw dëgg ku dul borom bi subhanahu wa taala donc xam naa ne na taxaw julli julli de mooy ci kaw innani ana allahu la ilaha illa ana faabudni wa aqimi salaata borom bi loolu lañu ko moom na nga seddali amul kenn benn buur bu ñu war a ku dul man subhanahu wa taala waaye na nga taxaw julli mu doon sa innaha salaa allahu akbar ñu delluwaat ba tey moom ci yonente yàlla Muusa maa ajalla haada alwahy wa awxaynaa ilaa Muusa wa axiihi an tabawwa'a لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة الله أكبر بعدين يجي أنت على موسى عليه السلام ginnaaw ba nga xamee ni yàlla may na ko mu nekk ab yonente yàlla yónni ko moom ak rakkam muy xaaruun leen astaxu moom magam muy xaaruun alayhi salaam yàlla lu mu leen xamal dem leen ci dëkk gële ñaan nañu nee nañ mooy Égypte ñaan nañu nee nañ Misra buñ ko waxee place la waaye li gën a wóor mooy Égypte gi xam tey wallahu taala alam dem leen ngeen dëkki fa ngeen tabax fa waaye tabax leen seen kër ngeen jubloo ko penk ngeen taxaw julli allahu akbar kon ba tey jullee ngo Suleymaan alayhi salaam comme niñ ko xamee woon muy buur boo xamee ni yàlla mayoon na ko lu bari taxawoon na bis nekk ci nguuram comme ni nguur ba nekkinam googu xaw tuuti waxtu julli faat ko dafa nekkoon ci ay warwaayam ay fasama kiy gëléem nekk na ci fas yi ba fas yi xaw ko tarteloo tuuti julli mu daal daanaka fas yi yëpp comme ni ñu koy xamee comme ñu koy waxee mu daal di leen liggéey maanaam fas yi ci la nekkoon ba fas yi xaw ko tardé waaye dafa xaw a rek tardé ba mu demee ba gis ni moom nii xaw na tardé ci julli bi ci waxtu bi mu daal di liggéey fas yooyu kon ñooñu noonu lañ meloon ci julli maanaam julli du leen xañ dara dara dara ci kaw suuf. ba lu ñu gis ne lii da leen di xañ julli gi dañuy dañuy tàqali ko moom lii ci yonente yàlla yu jiitu yi la ba tey waxtu dugguñu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam kon yonente yàlla suleyman alayhi salaam dafa nekkoon cay fas yi nekk ci fas yi ba dem julli tàkkusaan di ko waaja daf ba mu yore moom mu daal di liggéey fas yooyu léegi man ak yow nag bu nekkoon ci dara ba julli raw ñoom nan la def tontu bi ñu ñoo ko gën a xam ñu ñëw ci yonent yàlla Zakariya alayhi salaam ginnaaw ba nga xamee ni ñëw nañ di ko bégal ne yow de yàlla wërsëgal na doom ginnaaw ba nga xamee ni moom jàppoon na ni du am doom malaaka yi dañ ñëw di ko bëggal fan lañ ko fekk ñu ko doon san comme ni ko yàlla ñu ko fekk ci place jullikaay ñu ngi taxaw di julli malaaka yi fekk ko fa dégloo ko na ko xamal ni yàlla dina la wërsëgal allahu kon jullee nga ko tey ñoo nag ci suñu yonente bi nga xamee ni moo mujj sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na jamono comme ni ñu ko xamee woon diine gi ay étape la romb nekkoon na ci jamono joo xam ne yenn ci xare mi di xeex ak yéefee ji ba raw ko lan moo nekkoon réaction réaction mooy ñi nga xam ne ne de ñooma jax-jaxal sama xel o occupé loo ma jël sama jot ba awma jot ba julli tàkkusaan gii raw ma na mooy réaction réaction bu mu ñaan lan la ñaan ci yam mais yow borom bi de ñi nga xam ne de ñooma fàtt ba mënuma julli tàkkusaan na nga def seeni bàmmeel ak seeni kër safara soo xam ne day dàqal ndax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli rek moo ñu ko yëppam allahu akbar kon innaha as-salaa ma qurinat ibadatun fi al-Qur'an bi ibadatin mutanawiya ka-s-salaa fa innaha qarinatu az-zakati was-sabr wan-nusuk wal-jihad wa ghayru dhalik innaha as-salaa as-salaa as-salaa allahu akbar kon doomu nday suñu waxtaan bi mu nañ ko tuddee innaha as-salaa innaha as mooy tem bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci fan sukuraat allahu akbar ci jamono ji nga xamee ni mooy jamono gu mujj ci kaw suuf te nit ñaare li ëpp li nga xamee ni moom bu doon dund te mu nekk sa xel moom ngay mujj wax mooy sukuraat moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji muy sukuraat ci sukuraat boobu lan la doon wax as-salaa as-salaa as-salaa allahu akbar allahu akbar bàyyi leen xel ci julli gi bàyyi leen xel ci julli gi bàyyi leen xel ci julli gi ba mu doog moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon doomu ndey inna as-salaa julli googu nag moom mooy la mooy jaamu yàlla boo xam ne dañ koo mooñaaleeg jaamu yàlla yu bari Ibnul Qayyim am na ci wax ju am solo waaye ndeysaan waxtu bi dañoo njàtt li ñu cëre woon ci waxtu jeex na kon ci gàttal julli mooy jaamu yàlla boo xamee ni ànd naag zakat ànd naag muñ ànd naag aj ànd naag jihaad bépp jaamu yàlla boo bëgg rek julli am na ci comme niñ ko ishaara yi nii kon doomu ndey lii lañu cooloo woon ci waxtu ci suñu émission tay bi te ñu doon waxtaanee thème bi nga xamee ni mooy innaha as a ah, moom de julli na loo xam ne wax nañ ko fi mu jub ci borom bi subhanahu wa la lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëng ci kii wax la doomu aadama moom matul waaye nag sama yéene moo nekkoon ko lu kon wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin seen doomu day Oustaz Mouhamed Cheikh Sène bi ci Riyad moo doon waxtaan ak yéen ci seen émission bi jàppalanteeg ci site internet bi nga xam ne Islam House wala Daarul Islam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi